mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère la santé et de l'action sociale tey bésu gaaw juróom-benn fan ci weeru février mi nekk ministère la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñetti junni ak ñaar fukk ak juróom-ñeent test yi def ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett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 fukk ak ñeent ci Dakar Plateau ak Thiès fukk ci Liberté 6 ak Rufisque juróom-ñett ci Touba juróom-ñaar ci Xombol juróom-benn ci Géejawaay juróom ci Daara Mariste Mermoz ak Popenguine ñeent ci Jëppal Wokam ak Pikine ñett ci Diourbel Fann Résidence Grand Dakar Kaffrine Kër Massar Médina Ndofane Parcelles Assainies Point E Sokone ak Ziguinchor ñaar ci cité Aliou Sow cité Asecna cité Kër Damel Diamniadio Fann Hock HLM HLM Grand Yoff Xar Yàlla Liberté 5 Maka Koulibantang Niague Ngor Ouest Foire Patte d'Oie Richard Toll Sacré-Cœur 3 Thiadiaye ak Tivaouane Peulh benn ci Amitié 2 Bambilor Cambérène Cité enseignant Cité magistrat Cité Nations Unies Cité Port Dagana Derklé Diofior Fass Fass Mbao Gueule Tapée Guinguinéo Hamo Joal Kébémer Kounoune Liberté 2 Liberté 4 Matam Nioro Nord Foire Ouagou Niayes Petit Scat Urbam Sicap Mbao Tamba Yarax Yëmbal Ciloñ ak Tiwaawoon ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci malade yi ñu toppoon ci hôpital yi ak ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn ci bu ci yàlla ànde juróom fukk ak juróom ci malade ñoo nekk réanimation juróom-ñeenti malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb ajjuma juróomi fan ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak juróom-ñett ñeent téeméer ak juróom-ñett ak juróom-ñeent ci ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñett ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent fukk ak ñaar wér nañ ci juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak benn si lalu hôpital yi ak si malade yi ñoo xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ministère de la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal ñoo ñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñoo ñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñuy leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm